cimetière bi euh, tàmbali nañu liggéey ko depuis 2011 donc yàgg na euh, demoon nañu ba bëgg ko jekkali mais euh, xam ni ko fi dafa nekk si surtout zone boo xam ne zone check point la donc gendarmerie mi ñoo xam ne ñoo yoroon check point bi seen colonel bi ak autorité administrative su nekkoon ñooñu noonu que bu ñu demee ba tëj mur bi de peut-être que day indi jafe-jafe si wérum sécurité gendarme yoo xam ne ñooy monter si checkpoint xam nga situation géographique bu cimetière bi ak jafe-jafe sécurité boo xam ne amoon na si zone bi aussi loolu moo taxoon mur bi tabaxuñ ko mais je pense que euh, léegi loo xam ne moom lañ doon ragal si jamono yooyu je pense que loolu mën a trouver c'est vrai que gendarme yaa ngi fi bu léegi nekk si checkpoint bi mais dinañ fexe. tabaxaat mur bi de telle que ndox mi di bañ a dugg ci biir cimetière yi mais aussi dinañ profiter vraiment mettre de l'ordre dans le euh, na si porte yoo xam ne amagul bunt moom bunt yooyu dinañ si fàtte ñett euh, ñeent pour que ñu may bay ñaari bunt rek aussi defar ay bunt yu baax mais aussi recruter benn gardien wax naa délégué de quartier bi ne ñu choisir benn nit boo xam ne ku sawar la ku nekk si biir quartier bi pour que ñu mën ko recruter si mairie bi mu nekk gardien bi am ne aussi dinañ def de telle sorte que aussi agent voyer bi service technique municipaux yi dañ fi ñëw pour tracer def benn genre wu cadastre benn plan d' occupation boo xam ne dina permettre nit ñi ñu bañ a enterrer n'importe comment pour que cimetière bi mu am ay yoon mais aussi mu am ay zone yoo xam ne fa la ñu enterrer jullit yi ak chrétiens parce que cimetière mixte la donc pour que jaxasoo bi bañ am comme ñeneen cimetière yi je pense que c' important que ñu jël décision boobu pour que gardien bu fi nekk mu nekk ko xam ne ku farlu la donc délégué bo jox naa la mission boobu pour que euh, très très sincèrement cimetière bi nekk mën a nekk dans dans en tout cas lépp loo xam ne war nañ ko depuis mu nekk dans l'ordre et puis mu jaar ci